moo tax imam Busayri li wax ni siècle yi sax ñoom dañ ku nekk dina tiital ndax sa moromu siècle su ko defee nag ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax te di leen ci ziara di jégalu nag bu baax ci ba qualité kàddu bi da xaw a jeextu su ko defee comme niñ ko baaxoon doon ko defee rek muy heure bu ñu gudde ba pare way yi neex heure bi neex macha allah waaye itam ñu xam liñ doon wax lan la ndax nekkul fotos rek waaye wax ji def am loo xamante moo tënk ci biir imam Busayri comme ni comme niñ ko xamee Seydi Hadji Malick tànn ko ci oyofam ndax fekkoon dañuy wax rek li nekk ci biir téere bi kese suñu neexoon ne Seydi Hadji Malick lu bind ci xilaas mun nañ ne xaaj bi xaajat bi sax imam Busayri indiwu ko waaye nag mbaaxam ak ak ak ak yéen yu yiw moo tax mu daal di jël li nga xam mooy góorlu pour nag bu ne xam ne ni mu demee mu ñoom Busayri yi ñu koy bind ak jàngoro bi ko daloon jàngoro bu méttee méttee métti boo xamante ni amul docteur bu mu demul bu ko jéem a faj mu koo faj waaye muy bindee bu burdu bii nii ci la gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam après mu jàng ko ci kanamam ci la ci la Muhammad sallam jël benn benn mbubb benn manto ci gént gi mu daal koy solal après ci la wér moo tax si sëñ sëñ Mansour radiyallahu taala anhu wax ne nekkul bur ba dañ ko tudde al bur ah mooy wér waaye mu tudd sax bur bu su ko defee nag téere bi lépp njëriñ la lépp leer buntu juróomeel bi ñu nekk tey nag imam Busayri yi mu ngi wax ci kiimtaanu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom sa xam nekkul dafa ñëw rek ñu daal di ko jox kiimtaan ci ñu commencé yónni waaye avant ñu ko yónni la ak niñ ko préparé comme ni ko waxee woon ci gàmm gi passé moo tax mu commencé koy wax ni jaat li daawatihi al asjaaru saajidatan tamshi ilay ala saaqin bila qadamin imam Busayri nee na bokk na ci kiimtaan yi yàlla mayoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def am benn bis am abu jahli ne ko yow ne fekkee li ngay woote dëgg la ci yow yàllaa la yónni dañoo bëgg garab gee ngay seen nga woo ko mu ñëw fekk li nga wax dëgg la ci la woo gar garab gi daal di direeku direeku daal di ñëw ba ci Muhammad sasam seede ko ne man seede naan yàlla moo la yónni comme ni nga xamante ni noonu la ay ay ay rabi àll seede ci Muhammad sasam nekk yow fu mu la ñëw yàllaa la yónni daal di koy dëggal am ñu ne déedéet dafa soxla woon boppam garab yi daal di ko ñëw suturaal ko ba mu pare ñu daal di avancé waat dellu moo tax Busayri yi nee na soo gisee garab yi yu ñëw ci Muhammad sallam di ko wuyu si dafa mel ni nga daal di tracé benn tracé nekkul n'importe quel tracé de waaye koo xamante ni moo dàq dessin su dessiné tracé lu muy rafetee nee na garab yi ñëw ci Muhammad sallam loolu la ñu doon doxee doon ñëw ak ak ak seen kii reen yi loolu bokk na kiim daan yàlla mooy Muhammad sallam naka noonu tamit wax imam Busayri ci deuxième bayit bi ne ka annama satran satran lam li ma katabat ruwaha min badi il xatti bil qalami mooy leen wax sànq rek mooy bi ñu ñëw fi muy fi ñuy jaar soo gisee da ngay mel daa ko doon tracé ndax li nga xamante moom la jaara yoon ndax bi ñu ñëw di ko yóbbu mos bu koy kéemtaan yi ba tey misal xamaamaj anna saara sairatan taqihi harrawatisi li la hajiri xamin bokk na ci am na niir boo xamante nii moom moom la yàlla jë jegloon Muhammad saa aslam ne ko fu Muhammad saa aslam jëm rek topp ko di ko di ko keral moo tax moom doonu woon gis naaj fu mu dem rek moo xam naaj la moo xam leneen la niir boobu moo koy moo koy keral moo tax suñu jóge woon Makkatal Mukarrama Madina bi bi mu ñëwee ànd ak Abu Bakar fekk waa Madina doon ko doon ko séntu di ko xaar ñu seen leen ñoom ñaar xam ne wuñ ci kan moo ci Muhammad ci la Abu Bakar jëloon mbubb bi mu soloon daal di koy muural Yonent bi saa aslam kon mi ngi koy muural nekkul jant rek waaye dañoo bëggoon xam ne ndeke ki jël ki summi yére muural kee kon kooku mooy sang bi ndax ñu mën a xàmmee ñoom ñaar waaye mama sasa fu mu doon dox rek am na benn niir boo xamante moo ko doon niiral doon woon gis naaj moo tax imam Busayri di naaj bi lu mu tàng tàng tàng tàng amoon niir boo xamante moo ko doon niiral mun aqsamtu bil qamari l munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurata al qasami giñ naa ci yàlla mi nga xamante ni mooy mooy borom weer wi moo tax des fois nit ñi suñu jàmm burdu dañuy wax ne aqsamtu bil xamar li mu li mu li mu ko waxee ci ci ci bayit bi giñ naa ci weer su ko defee nag suñu jàmm burdu suñu koy critiquer dañ naan waaw lu tax imam Busayri yi naan giñ naa ci giñ naa ci weer waaye daa fekk ni ñu nit ñi xam ñoo jàng naxwu dañuy wax ne wa xasuma yu la mu jaayizun nit am loo xamante soo xamee dañ koy wax moo tax ci wàllu arab am loo xamante soo xamee jarul koy wax jarul wax soo ne giñ naa ci jant bi liñ ci jub mooy giñ naa ci borom borom jant bi borom jant ban wala borom weer bi nga xamante ni dañ koo xar kan moo xar weer bi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na kiim tamit yàlla mayoon yéefar ñu ko dañu dañ ko mos wax ni yow fekkee ni ngay woote ci yow dëgg la dañuy bëgg nga xamal ñu weer bi mu daal di koy xar ñaari xar ñëpp gis teg seen bët loolu nag da koo defoon ngir ñu mën a gëm ndax seen xel moo tolloon foofu noonu ndax nit ñu nekk soo nekkee ak ñoom ak ni seen xel toll ak ni ñu lay jéem a défier yow tamit ci loolu nga leen indi ci kéemtaan bu toll ak ñoom moo tax mu defoon loolu naka noonu tamit bu ko kéemtaan yàlla mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xolam jibril ñëw na ci moom ñaari yoon comme ni si daxaa ci maj waxee ci xilaas xar na xol bi ñaari yoon génnee ci lépp loo xamante nii dafay nekk luy soxor wala lu iñaan wala loo xamante nii dina tax nit ki bañ nit moo tax ma sosa amul lenn ci xolam loo xamante ne ko dina ko bañ nit loolu nag bi mu nekkee xale la woon bi mu nekkee woon ci xalima sa adeexam fa nàmp boobu la ko jibril ñëwoon si daxaaj ma détaillé ko détail yu leer ci xilaw zër ni jibril ñëwee woon ak ni mu raxasee xol bi ko ni mu ko opéré génne xol bi raxas ko ba mu set lépp loo xamante lu ñuul la mu génnee ko ci mu nekk xol bu weex tàll mu daal di ko delloo mu daal di koy kaste Cheikh El Hadj Malick nee na bi mu ko kaste bi ko Jibril kaste waatee soo gisee soo soo tiinee Muhammad sallam doo xam sax ndax fii mu sañ koo opéré ndax loolu yàlla moo ko def loolu Jibril yoon mu ñu def loolu mu ne tamit wa ma xawal gaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarfin min al kuffaari anhu amin naka noonu tamit maa ngi gën ci ki nga xamante nii moom la xunt mi làqoon kan mooy kan la xunt mi làqoon mooy xont mooy mooy mooy dañ ko waxee ci beneen baat bu gën a leer ci olof daa wax xont rek mooy ci ci ci suuf montagne yi daal mooy bi Aboubacar jóge woon ak Makk ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy ñuy dem jëm Madina bi ko defee nag yéefar doon leen topp doon leen daax ñu ñëpp daal dugg ci benn xont bi ñu dugg ci xont mi nag ci lu gaaw gaaw dégg nga yàlla yónni na pitax mu ñëw tàgg seen ginnaaw ci minute fere bi nga xamante ni ci la dugg ci biir minute ci la pitax mi ñëw daal di tàgg lënd bi daal di ñëw def ay jargoñam jargoñu def ay lëndam bokk bi ko defee yéefari bi ñëwee ak seen xel yu gàtt ñëw yër ni ah suñu seetloo xam ne lii pitax a ngi nii mu denc ñaari neen ah jargoñ bi daal di fi def ay lënd kon ñi dugguñ fii fekke sax Aboubacar nee na booba suñu jéggoo seen tànk tuuti rek daal di may laal teg mu ci biir loolu nag kéemtaan la boo xamante ni yàlla moo moo ko defaloon Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ñu ba egsi ci moom moo tax mun wamaa xaw wamaa xawal ak ki nga xam ne mun xunt bi làqoon muy Aboubacar dégg nga min xayrin wa min karamin wa kullu tarfi min kuffaar yi bëti yéefar yépp am yi dañoo gumba an xubu gisuñu Muhammad sallallahu alayhi wasallam te alors ñu ngi ko tiimoon sax mu ne fa siddiqu fil gaari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluuna ma bil gaari min arimi moo ñu wax sànq Aboubacar mu ngi ci biir xunt mi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci biir xunt mi ñoom ñu ngi leen tiim ñu ngi werante naan ah fii kenn da dugg fii ah fii kenn nekku fi de sànq rek mënuñ ko mënuñ koo fee de ci diggante bu gàtt bii rek fi tax mënu fee ñëw ba ba ba lënd fi ba ba tàgg fi am fi ay nen jar ba ñëw daal di fii daal di fii def ay lëndal te loolu nag yàlla moo yónni woon ñu ñu def ko ci saasi ndax ñu mañ leen mën a gis moo tax zannul xamaama wa zannul ankabuuta ala xayril bariyati lam tansuj wa lam tahul mooy li mu wax rek ñu yaakaaroon ne leen leen tëb mënu fee nekk léegi léegi naka noonu tamit mënuñu fee tàgg léegi wiqaayatullahi aanat an mudaafatin min adru'i wa an alamin min utumi mu ne yàlla képp koo xamante ni daal dina lay daal dina lay aar jarul ngay aajowoo ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ wala ñuy wax gilet gilet gilet gilet bal bal gilet par bal moom voilà gilet par bal jarul nga koy wut sax ndax yàlla moo lay aar nag loo tamit nga jëm nga wut ay guri yoo xamante ñoo lay ñoo lay ñoo lay garde ndax yàlla moo lay aar dégg nga moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu ak yàlla defaloon yàlla da ko aar moo tax wutul kenn ab gaar ku ko garde wala wutul tamit kenn koo xamante ni moo koy solo bu ko wala bu weñ bu ko ko dara du mën a agsi ci moom imam Bushayri ne ma saamani dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu xiwaaran minhu lam yubani maa sàmm nit daxaru jamono musuma teg lu ma naqari mooy comme nit doomu aadama yépp rek des fois am na daan lay teg ay tolof tolof ak naqar naqar nee na jamono musuma teg ay naqar naqar ak ay tolof tolof lu dul wéeru naa ci Muhammad sallam daal di ñaan ci barkeem lu dul li ma doon sàkku am naa ko ci barkeem moo tax mu ne dafa mel ni sax mu ne jamono musuma def lu ma naqari bu ma wut ci kan laay wéeru ci kan laay ci kan laay ganees yi lu dul am naa koo xamante ne moo gën gi wéeru waay mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy lépp lu ma sàkku ci moom daal yàlla dina ma ko may loolu nag valable na pour ñëpp wala tamassu zina daarayni min yadihi illa salamtu nada min xayri mustalimin musuma sakku tamit euh, euh, koomi aduna muy jik saa rek da- affaire poche yi daal di widd wala dëkk bi xaw a dëgër dalu ma lu dul wéeru naa ci moom alayhi salaam ñaar ci barkeem def tawassul ci moom lu dul yàlla may na ma ay xéewal ki teraan yu bare bare bare bare imam Bushayri ne laa tumsiril waxya min ru'yaahu wa inna lahu xalban ida naamatil aynaani min al yanami bul mos weddi ni yonent su nelawee gént li mu gént nekkul ay ay ay gént kese kese waaye wax yu la ndax dafa am ñaari façon euh, gént fekkee yonent moom du gént waaye wax yu la nit ordinaire nag soo reeree ba sa biir fees nga naan naan ndox soo tëddee nelaw mun nga gis lu nekk loolu nag di nga gént waaye yonent moom lépp lu mu gis ci ay nelawam rek nekkul gént waaye ay wax yu la luñ ko woon la ndax Muhammad sallallahu alayhi wasallam su doon nelaw bët yi moo gëm rek waaye xol bi من وذلك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في في فيه حال مختلف loolu nag kañ la ko dikkaloon fi nga xamante ni su nelawee lépp lu mu gis rek day nekk loo xamante ni jaxaral lay nekk loolu bi mu amee 40 ans mooy bi ko yàlla joxe nubuwa bu ko yónnee bi mu amee 40 ans ci la commencé lépp lu mu gis rek guddi su ñëwee loolu moo nekk réalité تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على على غيب بمتحمل mu ne màggal naa yàlla li nga xamante ni moo def ni wax yu nekk lu ñu mën a fàggu mun ngaa créer créer lu nekk waaye yàllaa ma déy lii yàllaa ma wax lii loolu moom kenn mën a koo créer ndax yàlla moom mooy loolu kenn ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent tamit amul lenn li ko mën a tuumaal ci yoo xamante yu ñàkk fayda la ak yu mel noonu kon wax yu daal yonent rek la ko yàlla la ko yàlla la ko yàlla daal di may ne amul ku ko mën sàkkul sa bopp ak di ko incarner sa bopp boo koy ceebtaan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey kam abbar at wasaban li billam sirahatuhu wa atlaqat araban min diqatil lamami bëri na koo xamante nii dafa dafa feebaroon feebar boo xamante amul fenn bu demul te mënul faju waaye moom masalam ñëw rek mu daal di loxoom laal la rek nga jaare wéer bu dootoo feebar te abadan naka noonu tamit bëri na koo xamante def dafa tàqali ko ak sagoom ba ñu koy yeew ci buum mu ñëw ci moom sallallahu alayhi wasallam mu laal ko rek mu daal di delloo si xelam delloo delloo si ci moom mu daal di nekkaat ni njaay di ngay wax bu koy kéemtanam ba tey wa ahyati sanata cheikh ba adawatuhu hatta hakat xurratan min afri duhami dafa am benn at woo xamante ni at mi dafa bekkoor taw amul euh, ñu toog maanaam béy bi dara amul jur gi maar deta lépp nekk ci bekkoor ñu wax ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu daal dem di jàkkale mu daal di commencé julli gee ba pare ñaan bi mu ñaanee ci la asamaan bi commencé rek daal di commencé commencé taw mu taw bis boobu noonu ba ca suba gee ci même heure bi moo tax imaam Bouchayri ne euh, de euh, ndox mi dafa baree baree bari ba su su da nga yaakaar ni montagne yi nga gis ak ak xur yi ni mu feesee da nga yaakaar ni géej gi sax moo débordé ñëw dugg ci dugg ci dugg ci feesal feesal feesal xur yi wala sax nga jàpp ni sax dex yi dex yi tamit ñoom ñoo ñoom ñoo tamit déboor tamit ba ñëw dugg ci dëkk bi na ndox mu bëri comme ndox mi nga gis ni naan am na Florida Amérique ndox mi ni mu mel noonu waaye nag bu fekkee bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nag moom moom deful ay dégâts waaye dafa ñëw bëri lool bu ñu jàmbat bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ñun ñoo la sàkk woon ci yow de nga ñaan ndax ñu taw ah taw bi nag bëri na ba mu bëgg ëpp nag dañoo bëgg nga ñaanal sa borom mu daal di arrêté taw bi ci li Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit yëkkati ay loxoom ñaan xawaala ay na la alay na ndox mi kat arrêté ko bi ko bi mu defee loolu nag ci yàlla dogal ndox mi arrêté mu daal di continuer taw ci àll ba waaye nag kër yi moom daal di amatul ndox kon loolu bokk na ci yëpp yi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla mayoon na ko ko kon ci tënk bu gàtt loolu mooy bunt bi nga xamante mu doon jàng kon ñu jégalu bu baax a baax ci yàq yi ما شاء الله ما شاء jégalu الله bu baax a baax a ما baax شاء الله asalaamaaleykum wa السلام عليكم
barakallahu fiik yaa ustaas ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla tawfiix yàlla ubbi sa dënn gën la yokk xam-xam ci barke nit yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam The Bluetooth device is ready to pair.
wax dëgg yàlla message bi leer na leer na naa ñu jërëjëf yal na yàlla fay la waaw xam naa pour continuer programme bi rek comme suñu mbokku taalibe Baye dañ fi nekk ñoom aussi dañoo bëggoon a sikar tuuti rek suñ jànqee baax na waaw ñëw leen ma ñu tuuti sikar rek waaw bu suba ah ah mën ngeen di ñëw barkeelu ci de ak ngeen ci de xaj ngeen ci de
ñëwal kaay kaay kaay yëngal affaire yi yëngal
waaw ñëw barkeelu loolu la ci baax de loolu ñëw barkeelu ah waaw d'accord kon xam naa ñu def suñu mbokk jàngkat yi rek ñoom tamit ñu gàmm waaw suñu kii kebe bisimilah Maodo.
وبصاحبي القتام قد من الانبياء فامنون علينا رافق حسن ختام مولانا وبصاحبي قدم من الانبياء والله أمن علينا بحسن ختام موت وبساقه خاتم قاتل من الانبياء والله فابنون عليه نارا بكل ختام مولانا وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء والله علينا بحسن ختام موت لا عيب فيهم غير أن الدموع ثم العتاد سعود كل